ahasubillahi mina sheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi barakaatu ñu ngi nuyu mbokk fi teew yëpp di sunu kilifa yi nga xam ne ñoo teew ci jataay bi ci turu Sëriñ Amdi Fall moom Sëriñ Modou Mbenda di jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall euh, fas yéene jottali ay kàddu yoo xam ne nag kàddu ndigal la mu jëm ci baatub ndigal boo xam ne bii sëriñ bi jot na ko mu bàyyi ko si jëwriñam di di Cheikh Modou Mountakha di jëwriñu sëñ Touba yàlla sunu borom yàggal ko fi te wéral ay cëram ndigal li nag jëm ci njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall ak si mboolem ku dib taalibe rek te sa yaakaar génnut sëñ tubaa ak Cheikh Ibrahima Fall kon nuy jottali ndigal si jataayub ndigal bii nga xam ne ñu ngi ko amal fii ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall. si teewaayu mbooleem njabootug maam Cheikh Ibra gi nga xam ne sëriñ bi moo sàkk woon ñoom ñëpp ñu teew ndax xam ak jàpp gu mu jàpp ni moo ñoom a bokk Cheikh Ibrahima Fall ndigal lu fi mas a ñëw nag fi moom jottali na ko ni ko sëriñ bi bëggee si mbooleem ñi nga xam ne ñoom la ko séqal ñoo xam ne bëggunoo doon ay naw ab ay nawleem bëgg doon ay bokkam waaye liñ bëgg mooy doon ay taalibeem rek ndax loolu la leen Cheikh Ibrahima Fall faggul te si loolu rek la nu mën mas sax muy njaboot gi nga xam ne li dalee si kër Cheikh Modou Moustapha Fall mi nga xam ne moo jëkk a wutu maam Cheikh Ibrahima Fall ba si kër maam Saliou Fall mi nga xam ne moo dem caatam da jàll si kër maam Saliou Fall mi nga xam ne moom it mook Cheikh Ibra Fall bokk lépp muy maam Saliou Fall moom daaru xafoor mboolem njabootug Cheikh Ibra gi teew nañ fi xam naa du aja du aaja ñu di ko lim waaye ku ku ku fi teewut jëwriñ ju fi teewut it ña nga xam ne ñooy say ndaw teew nañ fi si sa tur ak si tur njaboot ga ndax kër gi moom genn rekk lanu benn baat rekk fi am kenn ku si teewoon mel na ni teewal na ñëpp waaye safoo gun safoo ndigal ak xam gu nu xam ne ndigal moo nu fi indi te moo nu fi bàyyi moo waral waxtu wu baatum ndigal bi jógee rek kenn ku si nekk def sa yitte si am si taxawaay ba nga war a am ba li nu sëriñ bi digal lépp nu mën koo jëfe na ko sëriñ bi bëggee ndigal lii nu toll nag day ndigal loo xam ne mi ngi bàyyi koo Cheikh Modou Mountakha jaar si Cheikh Modou Bachir mi nga xam ne moo yor kàddoom yëw si sëriñ Amdi Fall mii di jëwriñu maam Seera Fall ndigal li jëm ci yeesal gu nu war a yeesal bërëb yoo xam ne sëriñ bee ko tànn bi ci jiitu di corniche bii nga xam ne moo wër mooy corniche bu njëkk bi wër jumaa ji tàmbalee si fii nuy wax poste contrôle ci Daaru Marnaan fi gaaras bu njëkk bi woon ñëw ba corniche su sëriñ Cheikh Saliou jàll ba corniche su Madiana dem gaarasu Daaru mussi jàll ba corniche su Guédé jóge fa dem ba corniche u Daara Jolof ñëw corniche Ndaamaatu ba dellu si si fii nga xam ne mooy poste contrôle bi sëriñ bi wax ni la mu bëgg te digal ko sëriñ bi ak njabootu Cheikh Rafal mooy tëli boobu yi nga xam ne moo jaar foofu ba wër yaari wet yi ko séq wet gu ne la fa nekk te wër faa nekk njabootu Cheikh Rafal gi dindil ko ko ba mu set wicc ba mu leer naññ muy lépp loo xam ne bu tëli bi li nga xam ne moo séq tëli bi si ñaari wàll yi wetuk ndeyjoor ak wetuk càmmooñ wet goo ko bàyyi koo rek lépp lu fi nekk loo xam ne bukkul ak la fa war a ne maanaam fa kër ya tàmbalee ba si tali bi lépp lu fa ne sëriñ bi nee na nañ ko dindi leeral ko wetuk càmmooñ jeet li dale si tali bi bay àggaat sa kër ya lépp lu fi nekk ñu leeral ko ba mu leer nañ loolu ndigal la loo xam ne bàyyi ko na si sëñ Touba ñëw si Cheikh Ibrahima Fall te sëriñ bi fas yéene koo jëfe ni mu ko waxee te ànd kook njabootug Cheikh Fall leneen li si dolli ko mooy euh, bu nu bàyyi ko si liggéey boobu sëriñ bi dafa wax nu dem sa ndaamaatu foofee ñuy wax kàmb kambi ndaamaatu kambi naar ya yaakaar naa ñu bari xam nañ ko miin nañ ko sëriñ bi la mu bëgg foofa mooy kamb yooye gannaaw bi borom xam-xam yi mu tànnoon yóbbu leen fa ñu saytu ko ngir lu saafara la fa nekk ndox ma fay ball ak la fay la fay feeñ sëriñ bi sàkk woon bu nu bàyyikoo ci corniche bi ñu dem fa sëkk ko ba mu ba mu maase rambale ko ba mu fees dell sëkk ko loola mooy ndigalu ñaareel li nga xam ne bu nu bàyyikoo ci bu liggéey bi àggee muy corniche bi rek foofa la ñuy jubal bu nu àggee man koo maasale ba mu mel ni ko sëriñ bi bëggee mu wax ni sa kàmmi ngelamu ya bu loolu jàllee ñu war a jublu nag ci marché Ocass marché Ocass it sëriñ bi dafa wax ni li dale fii si station bi nekk ci 28 jubal wuti penku jaar si digg biir marché bi mbedd moomu danoo wax ni ñaar fukki mètre ak juróom-ñett moom la yaatoo moo tax ñu naan ko 28 mu wax ni mbedd moom yi la bëgg nu topp ko ba sa kër Baye daam Dramé ga lépp loo xam ne mi ngi si kaw mbedd mi loolee nu jëlee ko fa ba mu set wicc waaye nag dasee boole ni mbedd yi nga xam ne ñoo soqikoo si mbedd moom yi si biir marché bi dugg càmmooñ ak ndijoor mbedd yooyu it nu topp ko moom it lu fa ne nu dindi ko la nga xam ne moo ne sa gannaaw marché baat muy fa ñuy wax njóobentaay foofaat ak li wër marché bi jëmi marché bi moom it lépp loo xam ne daal bokk na si yoon wi loolee nu dindi ko ba bu fa oto jaaree waxtu bu mu fa jaaree mën a jàll fu waxtu ko soob te du am benn jafe-jafe loolu la sëriñ bi bëgg nu defal ko ko mooy ndigal li nga xam ne moo bàyyi ko ci Cheikh Modou Mountakha ñëw ci sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda ak njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ bi waxoon nag nu woote ngir so ngir ngir leeral ko ak ngir soññee ci mbooleem ñi nga xam ne ñooy jëwriñ yi te mu teg leen ci kanamu njaboot gi ñoom ñëpp ñi ngi nii teew dañuy jox kàddu gi xam naa ne sëriñ Fallu jëwriñu sëriñ Modou Aminta su ko defee si kàddu jëwriñ ji di sëriñ Cheikh. Ndiaye Mbeng moom it mu def soññe bi nga xam ne moom la sëriñ bi sàkk fi moom mu def ko mu jëm si mboolem taalibe yi muy woote bi ak soññe bi ak yëgle gi nga xam ne ñi nekk si barab boobu si kaw yërmande ju sëriñ bi am muy sàkku si ñoom képp koo xam ne yaa nga fa ak loo xam ne méngoowul ak lii sëñ bi bëgg nga teel koo dindi balaa ndigal lee egsi ndax sëriñ moom fas na yéene li ko sëriñ Touba digal mu def ko na ko sëriñ Touba bëggee. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ñoo ngi ziare suñu kilifa yi tedd yi fi ne di waajur di sang ak suñu bokk taal bi yéen bokk wu seen ndool ak njabootu maam Cheikh Fall gépp kàddu yi ma jox de ndax naa damaa wuyu woon ngir déglu ndigal rek waaye wuyu si woon ngir di jotale genn kàddu waaye ndigal nag fu la dawee rek moom foo foo foo foo la moomee. kaay la nguy la suñu wax kaay la nguy leen waxoon kaay la nguy nag mooy kaay la njël sëñ moom woote ne kaay lay wax kon ku mënta ñàkk da nga si sëñ mu demin baax ma daana wax naan kaay la nguy la indi leen ndab yi nag ku ñàkk da nga sa ndab ñu defal la ja moom leen bëgg lépp am na ko waaye duñ ci may dara nag duñ ci duñ jàppal dara da nga koy jaay rek kon ndigalal sëñ Tuubaa li ñëw ko seeraay faal na mel li sëñ Bilaat Mbàkke la mu digaloon sëñ Moodu Aminta laaj ko ni ko ñu ko suñu yaari kër yi daa daa mbañ sëñ mu ni ko ko kër gi man muy kër sëñ ma toog war a digle digle woo war a tere tere woo ku toog fii ma toog lekk nga mbañum kër sëñ Tuubaa yéen seen kër googu xam ngeen seen mbaña ñu ko bëggoon koo xam mu ni ko mooy ndigal jógee kër sëñ Tuubaa ñëw kër Sëñ Fall jëfe leen ko fi mu ko defee de lekk ngeen mbañum kër Sëñ Fall kon mbay moom it gaaw yàlla dugal na ba fi Cheikh Rafal nekkee ba léegi kenn su koo lekk ah, ni fi nekkee di fas yéene jéem a yooyu seen digal nañ fexe moom mbañ bu mu ko lekk. Touba gi nag ah, wax nañ ni fi Cheikh Rafal nekkee sëñ bi ne fi ak mag ñi ñu am nañu ku ñëw wax waxin Fall ah, mu defal sëñ bi dañ lakk lakk mooy am ñag. mu ne ko ah mu ma defoo la la la ñagee Touba ko. Eh, ab làkk la koy róor ca dënn ca làkk ba la juddoo am làkk ne la koy róor ci biir làkk ba la juddoo waaye du génn du ne du ne ci biir di di ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk ba di ko kon day mel ni kon ñu ne ci biir dëkk bi kon xëy na li nag li fi naqar bi li fi naqar sëñ bi ñoo ko ñoo koy def ba sëñ dina ko terewaat kon nag sëñ bi nee na monsieur Ibn Fall monsieur Modou Mbenda ci kàddu jëw dañu jii di sëñ Cheikh Fall monsieur Modou ko xam ne Cheikh Ndiaye Mbengue sëñ bi nee na mi ngi digal bépp taalibe mbaa bépp bépp bépp bépp mbokk rawatina ñi nga xam ne yéen a seerafaal nag ndax fi ne ku fi beru ku fi beru barab kenn ne fa lu yow yaa fay doon seerafaal ndax yow lañ koy yow lañ koy tudde yow lañ koy yow kon nag kàddu seerafaal gi yëg ko sëñ Tuubaa sëñ am di moo neen ñëpp mi ngi koy yëgal mu ngi koy yëgal ñëpp di ko di ko di ko jàppaloo ñëpp bëgg nag nu fédération laxasaay def ko na ngeen defan ci marché oka marché marché gaar naa ba ngeen dañu borom bëggoon am na ko ja xolam seen na ci guy sant gërëm moo tax xam naa ne lii seen kanam itam yéen donga la ci doyloo waat yéen donga la ci yaakaar yéen la ko mën a digal ndax yéen ñi nga xam ne yéen genn kàddu du ngeen amuy baatum digal fi ne léegi tey léegi tey ci kanam tuuti rek ñu woote woote boo xam ne day yaakaar bokkuñu ci te ñëpp dañu woo fi ne léegi tey ñaaratu jege ñuy woote jumaa yi ak ak jàkk yi su boobaa dañuy yaakaar ne bokkuñu ñuy woo te ñu ñëw ñëpp ñëpp la sama borom woo ginnaaw dana wootee woote boobee ndigal kon ndigal dina ko gën a fedd fedd la baax di gën mooy sunu dund mooy sunu koom mooy sunu alal ndigal nag jëfe ga moo la jëriñ waaye dégg du la jëriñ dara danga ko jëfe kon sëñ bi nee ndigal lii sëñ Tuubaa digal Seera Faal te yéen yéene Seera Faal ak taalibe ak njaboot yëpp ak wëlëre yi sëñ bi nee na mi ngi koy digalaat ñëpp nag di ci woo di woo ñëpp ku si yaakaar ne ci sëñ Tuubaa mbaam ne Seera Faal sëñ Tuubaa la ci woo ndigal nag dafa mel ni xam naa ñaar fën ak ñeent huit ne di février da doon tolloog ajuma ñu kas rajo ba ci suba sa ba bis waaw ba bis delsi muy vingt-quatre février ci la ci lañ koy tàmbali duñ ko bàyyee nag kii loolu daa mbaa ndigal bàyyi loonu ko rek ah, nu ànd ak lana amoon nag nu ànd ak moom ab yar ak teggin rek daal moom bu ñu loo ne yàqaloo ko bu ñu laal lu ñu laal loowul dafa sine lépp lu ñu bokk ci nan nan ko dindi loolu lu ci war a bokk ko nan ko laaj nu ko waxee rek loolu ñu dindi ko xam naa rek du ñàkk ñàkk ñu ñaan intervention yi ndimbal bëgg a def sëñ bi mbaa ñu dem feneen dafa jaar bëgg ñu bàyyi leen fi lii mbaa defal leen lee waaye sëñ bi daal na ko kon daal la wax wàll yi lu fi ne te waru fee nan ko nan ko nit koo ci xam ni yaa ngi koy déggante ci biir Tuubaa ak foo mën a am am dara loo xam ne lu war dina la teel ko dina léegi balaa balaa ndigal lay jóg sëñ bi di Fall Modou Mbène daal nee na fas li sëñ Tuubaa bëgg dana ko def mu itam fas na yéene li sëñ Modou Mbène bëgg daal daan ko def kon nag ku fay fu fay ne te nekk foo xam ne war a faa ne mbaa nga def loo xam ne waru ko def dindi ko balaa ndigal a jóg bu ndigal jógee lépp lu ñuy maasal dindi ko ba bi képp ak kër yi kon nag sëñ bi mi ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp ci woo gi mu ne moom ngeen wuy si te fas ngeen wuy si kon yàlla na sëñ Tuubaa jëkkaloo ndigal yëpp ba koo jëfee na ko bëggee guddal fan yi baax te wéral yaram yi loolu yi kàttan yi xéewal yi mu daal noo ngi déglu ndigal rek di ko di ko fas yéene jëfee kon nag noo ñaan sa borom Cheikh Amadou Sow Fall mii di see am du ma di benn di maam Cheikh Ibra Fall suñu borom jagalandu ko fi te wéral ko lool ba lim naa la liggéeyal maam yëpp mu def ko nu ko jotam ak waajuram yi Cheikh Mountakha Mbacké a wér ba naa yëpp naa la maam parce que liggéeyal Sëñ mu def ko nu ko jotam te ne ànd ko moom yéen murid itam suñu baa ngi ñaan sa borom leen di wéral leen nag te man loolu leen ndigal yëpp ngeen yàgg ko jëfee loolu rek noo ngi jégalu baax nag te sant bu te soñ ñëpp rek fu murid nekk daal ci kaw suuf yaa yaa Sénégal su fekkee régions yi ñeent wala yaa xam jeejes baraaba foofu mën a ne ndigal yi moom bokk ci yombal léegi ndaw yi daa bari lool western am na am na lu ñuy wax transfert de DWF am na lu ñuy wax MoneyGram am Ria am Pasu lu ne nga fi daal kon nag fay mën a nekk rek di bëgg a ñëw ci liggéey bi mën ngaa daal ñëw ndax dugalal sa sa ñax ca foofee nga ne mu fekk sa bi fii fii mu ne ndax am na ñoo xam ne day war naan ndox di war a xéewlu oto yi am gasoil di ñu ko ci def muy dem di yóbbu liggéey bi ka ñëw li ci war daal bari na te ni ku ko xam ne la ci doon kon nañ ñëpp jàpp rek kenn ku ne na jàpp ne ndigal li yaa tax mu jóg su ko loo ci nga def ko ci te ñaan ci la nga bëgg lépp suñu mën na la ko suñ jërë ngeen jëf noo ngi sant tey gërëm baax a baax sëriñ baa ngi doon soññee nag noonu ko sëriñ Fallou waxee mbooleem ñi nga xam ne danoo am ay jumtuwaay yoo xam ne des na ko yittewoo si liggéey bi mu jëm si ay kamiyon walla ay pelle mécanique ak euh, lépp lu ajoo lu nuroog loolu loo xam ne des na ko yittewoo sëriñ baa ngi sàkku ci taalibe yi képp ku ko man nga indi ko teg ko ci loxoy jëwriñ yi nga xam ne ñoom la tànn jiital leen ci liggéey bi loolu sëriñ Fallou lu waxit ñu wax ne ndigal moom daa mel ne caabi rek bu ëppee du du ubbi bu yéesee du ubbi te njabootu Seera Fall ci jëfe ndigal rek lañ leen xam Euh, ndigal loo xam ne dañuy tàmbalee fañ leen sant yemloo leen fañ yem fan leen yemloo kon sëriñ bi di soññeeti képp kuy ñëw te dégg woote bii ci ndigal li nga topp ci gannaaw kilifa yi nga xam ne ñoom la sëriñ bi tànn te xamal leen li mu bëgg su ko defee fu ñu leen sa tàmbali loo nu tàmbali waaye fu ñu leen yemloo nu yem fa kenn bana jàll ci loo xam ne defloowuñ la ko walla nga jël sa xelum bopp ndax xel moom li sëñ Saliou waxoon rek day dem ci garab yeeg géej géeg fu ne waaye tànk moom tege si yoon mooy tax mu àgg fa mu jëm te si loolu rek lan nu xam kon bu nu bu nu seetaan kenn di ñëw di dugg suñu biir te bokkut si nun di def loo xam ne wuute naag li sëriñ bi digle képp koo xam ne séen nañ ko muy def loo xam ne bokkul ak ndigal li nu xam ne kookee bokkul si nun ndax nun si ndigal rek la nu tënku te fasuñu ko yéenee wàcc mukk seddi na sëriñ bi nga soññi nag ñi ñi ñi nga xam ne ñoo dëkke si wet yooyu si yërmande ji mu am xam ne ñoo bokk dëkk bi ñoo bokk yéene ñoo bokk bëgg sëñ Tuubaa ak Cheikh nu fexe ba kenn ku ne lay ne sa buntu kër donte am mbaar la moo def te mu déborde na ko dindi bala nu faa agsi sëriñ bi àgg na si wax ni ñi nga xam ne dañoo karole seen buntu kër ba jël lu nu moomut lu bokk si bedd mi loolee nan ko fexee dindi ba yem fa nga xam ne fa la leen yoon yemloo ngir bu nu ko defutit bu nu fa àggee des na ko dellu dindi ñi nga xam ne danoo yor ay bërëbu liggéeyukaay si diggante bi ak ñi nga xam ne danoo faa def seeni bërëb yoo xam ne xañ na dañuy féexlu walla leneen kenn ku ne la nga fa def te xam ne bokkut ci yoon wi daal ndigalul sëñ Muntaxa mooy nu dind ko ba mu set wecc kon nag sëriñ baa ngi sàkku si ñépp ñu nangu ndigal li ni ko sëriñ bi bëggee ndax xam nañ ni jëfe ko si la sunu njariñu tey nekk si la sunu njariñu ëllëg nekk donte xamuñu ko nag jëfe ndigal rek ni ko sëñ bi waxee moo nu fi indi te nu fi bàyyi bu bis baa nag ñaar fukki fan ak ñeent di ajjuma bu nu kasu rajabee ba bis bi dellu si incha allahu dañuy daje fii nga xam ne mooy poste contrôle foofu Serigne Moussa Fall di toog si mbale mi foofu la ñuy daje incha allahu ba jëwriñ ñi joxoñ ñu joxe baat bi ñu daal di tàmbali nag nekk si liggéey bi ñi nga xam ne ñoom la sëñ bi tànn ne sa kanam ah ñi nekk si ginnaaw di jëfe na ko sëriñ bi bëggee ñuy ñaan yàlla nañ ko fekkee jàmm te jëfe ko ni ko sëriñ bi bëggee ba am si lépp liñ ci yaakaar am naa lu si des si nun la waaye sëriñ bi moom lépp mat na Fall waaw jërëjëf Fall waaw sëñ Saliou nee na li sëriñ bi bëgg nee na faaw dañu koy def rek ndax loolu rek moo nu fi bàyyi waaye ñoo ñi nga xam ne ñoo ne si wetu tali bi te ñu doon leen tudd léegi ñoo ñoom ñoo bokk dëkk bi ñoo bokk sëriñ bi bu ñu déggee kàddu sëriñ bi dana war a ànd ak nun ci jëf ji xam ne li sëriñ bi li sëriñ bi bëgg moom rekk lañu war a bëgg li tax mu jox nu ko nag dañuy matériel am matériel bu Cheikh Ibra waaw matériel sëriñ Touba mooy Cheikh Ibrahima Fall waaw sëriñ bi nee nu jéggal ko ndax baat bi dee bi waaye ñu ne si wet yi daal. te am lu nu fa defoon. dégg nañu kàddu sëriñ bi. nanu ànd ak nun ndax ñoo ñoom ñoo si yem. ñun ñëpp ay taalibe bëgg sëriñ bi. ak yaakaar ko. ak ndimbalu sëriñ bi. moo leen indi si dëkk bi. ñuy sàkku nag. mboole seen ñoom. bu si kenn am ak baay faal yi. ak juyoo. ndax Baye Fall yi ñoom ndigal rekk la ñuy dox bu nu sañoon Cheikh Ibra mi woote ne ñëw leen njariña gi ba nu ñëw mu wone niñ ciy jariñoo kooku dimbali na ñëpp kon nag nanu góorgóorlu def li sëriñ bi bëgg nu ànd si nun ñëpp bu kenn dem fenn di fa def intervention ndax intervention itam. li li muy nuru. mooy li sëriñ bi digle. nga am loo sa des. te bëgg nu bàyyi la sa. loolu nag du mën a nekk. kon ñu ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp. jërë ngeen jëf. jërëjëf Fall. waaw mën ta ñàkkay Fall. mën ta ñàkkay Fall. alhamdulilah. nee na liggéeykat yi itam. ñu ñi leen di won fi ñuy aw. ñi leen di won fi ñuy aw. nañ leen xàmmee. nga xam ne li sëriñ bi bëgg. ñoo koy wone bu ko dee ñu topp seen gannaaw. di jëf di jëf. ne rek la ñu am. jëf rek la ñu am. waaw jërëjëf Fall des na ko leeral ci rajo yeeg télé yi bañ bañ ñëpp dégg ko loolu lépp rek dugg ci yërmande sëriñ bi mu mu bëgg kenn bañ a loru kenn bañ a lore. waaw incha allah bu nu bu nu defee màggalu kasu rajab nag ba sa gannaaw ëllëg sa da danoo bëgg a def benn koowaa boo xam ne nun ñëppay àndandoo nag topp corniche bi takk ay rajo képp koo xam ne kii déggoon nga ndigal li te jëfewoo ko ñu soññ la fàttali la laabire la waaw ku ko déggutoo nit ñu fàttali la ko waaye diggante fii ak booba danañ fexe mu yaatu si mbooleem fu nu koy mën a waxee te loolu ndigalul sëriñ bi la waaw ndax noonu la ko sëriñ Cheikh Bassoum sëñ Abdou Khadir sàkkoo si sëriñam di ne ko noonu la ko sëriñ taxaa bëggee ñu laabire ñoom ñëpp ba nu xam li sëriñ bi bëgg te di nég nag nu ànd seeg sëriñ bi kon nag loolu moo doon ndigal li nga xam ne eh, moom la sëriñ bi doon woote. sëriñ bi nee mi ngi leen di nuyu bu baax nee na mi ngi mi ngi mi ngi jottali ay cantam yoo xam ne cant yu kawe la mu jëm si mboolem njabootug Cheikh gii di njabootug boppam. nee na eh, di dalal xelam bu baax nag eh, di dalali seen xel xam ne lii nga xam ne moom la sama boroom dogal nii rek la ko seerafaal bëgge woon nii rek la ko seerafaal sàkkoo woon te moom li mu am yéene mooy li taxawaay bii nga xam ne moom la ko suñ boroom jox mu ànd koog yéen te waxtu ne day wax ni yan bi nuru na lu diis waaye woyof na tooy ndax dara egsiwu fi fi moom ndax lépp loo xam ne ndigal lu bàyyi ko ko sëñ Touba ñëw si moom di Cheikh Ibrahima Fall mu jottali ko rek defe ngeen ko na ko sëñ Touba bëggee te ni ko sëñ Touba bëggee rek la ko Cheikh Fall bëggee nee na jataay bii moo ko sàkk woon moo ko woote woon waaye nee na xolam dellu na seddaat bu baax a baax si gis gi mu leen gis xam ne amul lu dul yéen waaye yéen amu leen lu dul moom waaye nag yéen ñun ñëpp nag nu bokk. lenn rek muy ndigal nga xam ne ni mu ko waxee ne moo nu fi indi te moo nu fi bàyyi dafa wax ni moom ndigal li waxtu bu bàyyi koo sëñ Tuubaa ñëw fi moom moom jëfe rek la ci xam jëfe gi nag da ko fas yéene ànd ak yéen ndax loolu la sunu borom dogal nee na xolam sedd na lool nee na mi ngi leen di ñaanal sama borom musal leen sama borom sàmm leen ti aar leen nee na na ngeen gudd fan na ngeen wér nee na bu leen dara gàllankoor. nee na lii liggéey bii nga xam ne mooy ndigal li egsi fi yéen nee na yàlla na ngeen ko àggale fa ko sëriñ bi bëgge nee na te buñ si dajee genn lor ni ko sëriñ bi bëgge nu defe ko ni nee na xolam sedd na lool xel xelam dal na bu baax a baax ndax xam na ni li sëñ tubaa bëgg faw mu am te kër Cheikh Ibra Fall rek lay amee yéen nag yéenay Cheikh ma Fall nee na xelam dal na si liggéey baa ngi noonu si seen loxo nee na nu taxawu ko ni ko sëñ Tuubaa bëgge sunu noppee toog dégluwaat ndigal rek waaw kàddu yooyu daal la waxoon si tënk. Mm-hmm. nu jottali ko njaboot gi. waaw nee na xolam sedd na lool sëñ Fallou sëñ bi nee na bëgg na lool <laughs> waaw jërëjëf Fall waaw waaw ne sëñ Talla nee na ñoom li nuy ñaan mooy sëriñ bu yàgg fi lool te wér waaw ñoom ñoom ñoom seenu bëgg mooy nga yàgg fi rek nga yàgg fi rek te wér ndax xam nañ ni sag yàgg fi mooy sunu njariñ waaw dañ lay ñaanal nga yàgg te wér ndigal yi jógee ko sëñ tubaa waxtu wu ne nga am kàttanu mën koo jëfe ni ko bëggee Ah, ndax jëfe ko si eh, ku ko xam ak ku xamut si la sunu njariñ nekk si la sunu defaru nekk àddina ak àllaaxira ah, ñu ngi lay ñaanal faal nga yàgg te wér waaye ñoom it faal nga ñaanal leen rek nu nu yàgg te wér te am kattan guñ la liggéeyalee ah, ndax waxtu woo wootee rek ñu ñëw wuy si la waxtu ndigal li jibee rek ñu jëfe ko na ko bëggee kon nag ñoom ñëpp ngi nii toog faal waaw waaw ni ko sëñ bi bëggee rek na am rek te bu nu si am benn gàllankoor nag liggéey la bu rëy nag bu diis. waaw waaye bu ñu si am benn gàllankoor nañ ko jëfe ni ko bëggee rek waaw jërëjëf Fall. jërëjëf. kon ñu kon ñëpp tàllal seen loxo.